élection yi ki nga xam ne le président Bassirou Diomaye Tiara Faye dem nak doon na daal di jàkkaarloog exactement ak li nga xam ne que askan en conseil des ministres il a pris euh, hein, euh, des décisions et des nominations le itam de son ko daal di at sur mu gën à la aussi ñu ñuy informé que ni CNG euh, amaana beneen ñit bu bees di ki nga xam ne que moo Ngom mom nag leen dal di nommé exactement mu nek président bu CNG bi nga xam mo itam dal di diriger la lutte sénégalaise fi ak li nga xam ne que benn at exactement moy mandat waaw li ak leneen tay moy def suñu ay ponk like et partagé parvenez live bi dina xamni tam ñu ñoo xam guñu fi fa seen daal di wala mëna top si la xamne nekk mu di waxtaan wi euh, suñu mu gëna a exactement alors Arfan da nga koy di commencer tout d'abord euh, par rapport ak euh, ki nga xam nekk di Macky Sall malheureusement FMI dem euh na tontu exactement euh ces révélations yi nga xam ni itam Macky Sall dafa ndox kenn réew mi da ko baye ci vert suñuy xol Ousmane Sonko lam wax il s'en désole dara amul aussi euh, Enfin, nous avons analysé la tournure justement de l'événement euh, suite sortie contre sortie réplique contre réplique après Ousmane Sonko le le représentant euh, du FMI tribune Bundon Kokeni, ko que ni mi Ousmane Sonko tantôt aussi ñu FMI mi ngi encouragé exercice bi nga xam tam état mi ngi si Macky Sall génn ne réew mi bàyyi vert FMI tamit génnaat ko que Sonko concrètement à fond. oui euh, man dama ni que euh, la banque FMI voilà la banque euh, mondiale voilà les partenaires financiers donc euh, internationaux du Sénégal Ñom tamit dañu ci am parce que hmm. aussi bu fait que na bu ñuy financer le développement du Sénégal euh, donc moteur pour euh, euh, ñu addu ci mbir mi dafa dafa am solo. Mm. maintenant concernant Macky Sall man je crois que Macky Sall du Ousmane Sonko la wara la wara la wara démentir wala la wara rectifier. ok kan la wara rectifier concrètement. exactement alors exactement man li ma gëm ci mbir mi dama japp ni Macky Sall bu amé ñu muy les chiffres il faut que mu weddi FMI ak Banque mondiale et les partenaires financiers c'est pas à Ousmane Sonko. Mm. Macky Sall du Ousmane Sonko la wara a plutôt dafa war a FMI Banque mondiale et les partenaires financiers euh, donc euh, euh, internationaux du Sénégal mais pas à Ousmane Sonko Ousmane Sonko il vient juste d'arriver du pouvoir. mais Ousmane Sonko il peut être... Oui, oui. ni il def boobu de exercice xam un xam euh, politique. xam nga mu daal soumettre à cette xam il faut bien comprendre benn affaire. ok bu simple concrètement. Euh, Ousmane Sonko li mu wax ci chiffres il s'est basé sur un audit de l'inspection générale des finances Ousmane Sonko a gagné des ay chiffres non, non non ni dañuy def surfacturation wala ni le taux d'endettement la surendettement du Sénégal Si nous doon sénégalais il y a 60 voilà 65 73 voilà comment dire, déficit budgétaire Si euh, nous wax Sénégal ni que 5% 10% 10% 10%. ci hmm. Ousmane Sonko inventé sénégalais pour nous comprendre C'est pas à Ousmane Sonko pas à Ousmane Sonko directement parce que Ousmane Sonko n'a pas inventé les chiffres C'est une c' c'est ce qu'on ne dit pas les sénégalais. mais à quoi Macky Sall Donald Diapoli Ousmane Sonko faisait de la politique non non non Ousmane Sonko euh, s'est trouvé peut-être euh, incapable de gérer le pays moral waral muy avance chiffre yi si làqatu derrière que ni lui moo waral ba tey mënugu doxal exactement ce programme il faut il faut bien comprendre audit nan lay demain. Dis-moi ko comprendre audit audit nan lay demain. yo da ngay yaakaar ni que Ousmane Sonko ils font de la politique déedéet ils font pas de la politique Ils dit les chiffres ñoom de def politique que ça soit Bougan, que ça soit Macky Sall ils font de la politique parce qu'il s'agit des finances 1 plus 1 égale 2 c'est purement technique et mathématique finance comment <laughs> nga xam nga xam def audit wala def comptabilité hmm. demal nga laaj comptabilité voilà ñu def audit il s'agit pas d'une dissertation le factuel là non faut xam le concret là audit de dissertation finance mbirum finance du dissertation bi ngay def ay lettre moderne wala am droit wala nga def dissertation audit 1 plus 1 égale 2. mathématiques c'est des chiffres on développe des chiffres on calcule nous état li le débourser. xaliss bi fi le dugg li le dugg fi la jaar gare la jaar ñii ñoko financer voilà le marché depuis Macky Sall 2012 il a fait 12 ans de ce pays mm. voilà voilà le rapport et les chiffres de 2019 en 2023 par exemple nous, nous audit mais nous avons dit que purement politique dina non nous bi fi ne nguur bu bees bi nous tële lu ñu chiffre c'est parce que nous audit Yo, tu es en train de parler parce que tu es, même, tu es un opposant politique. Tu fais de la politique. Moi, je suis Macky Sall, mais comme il dit, il dit directement la banque FMI, il dit directement la banque mondiale, il dit directement les partenaires financiers du Sénégal. Parce que... Donc, Ousmane Je sa question. Hmm. L'inspection générale des finances, il fait audit. Il a connaît ma ma faram ko pour sénégalais comprendre l'inspection générale des finances bi def audit ci les chiffres les derniers chiffres que le gouvernement a publié day ñew bu fekkee fallu c'est un partenaire financier du Sénégal da lay laaj durant ce mandat là wala durant ki ñaata nga duggal ci xaalis ñaata nga investir ben fallu wax ko fallu jox les chiffres mu ñew ci banque mondiale ñu banque mondiale. yow diggante bi dernier quinquennat bi wala durant le mandat hmm. ñaata nga finance l'état du Sénégal wala ñaata nga lebal l'état du Sénégal ci xaalis hmm. FMI joxe les chiffres ñu ñëw ci banque mondiale l'inspection générale des finances laa lay wax de hmm. ñu ñëw ci banque mondiale ñu ne ko dernier quinquennat Macky Sall bi wala euh, durant le ñaata nga lebal ci xaalis ci Sénégal xaalis bi lim nu mu toll moom mu joxee les chiffres après ñu ñëw quasiment ci le finance ñu laaj ñu ne le ministère des finances les partenaires financiers lii la ñu dépensé lii la ñu lebal Sénégal lii la ñuy investir les partenaires financiers lii la ñuy investir ci Sénégal ci quinquennat bi voilà xaalis bi lii la toll voilà les dépenses qui ont été développées par l'État du Sénégal ci jamono boobu ni la limbe ni la toll projet bi lañu réaliser projet bi lañu développer projet bi lañu financer. alors c'est clair yooyu yëpp dañ koy décortiquer ba génnee conclusion voilà la conclusion des rapports yo xamanté mom lañu Ousmane Sonko ak les ministres là moom la ñu toog. di ko wax sénégalais pour sénégalais comprendre comprendre. Mm. dama dama juste nekk di expliquer sénégalais mm-hmm. audit nan lay il s'agit pas nga nous ñu jox la ben rapport wala ñu ne la légui waxal ci li c'est pas comme ça. alors c'est clair on touche dans tous les couches nous laaj. Hmm. ñu def investigation pour xam ñaata la ñuy lebal ci xaalis état du Sénégal état du Sénégal yan comment adresse projet le développer quels sont les axes majeurs yoo xamante ne xaalis bi fan la jaar fan fan la dugg. Hmm, hmm. ñan ñoo ko ordonné. ñan ñoo ko exécuté. pour sénégalais comprendre. alors mi ngi noonu. moo dama ne la Macky bu naree weddi. dafay weddi et la banque mondiale et la banque FMI et les partenaires financiers ñoo ñom ñom ñom tamit dañoo seen ci exactement en tout cas donc le FMI euh, mi ngi exactement les autorités euh, sénégalaises pour ñu daldi jël euh, seen cas audacieuse pour réduire exactement la dette publique donc mi par rapport ak li la FMI mu confirmer ki Ousmane Sonko de di je woon euh, si walu wunu mel alors je vais fàtte ba émission li nga xamné le truc de sur les antennes de Sénégal 5 TV je bu baax baax partagé like live bi ñoo daal wi euh, a exactement ñoo daal di ñëwaat ci ki nga xamné que modi Ousmane et sa sortie que di ñëw ki que Kader bu euh, li